asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julli bokki taalibe yi nu bokkal yaakaar Serigne Touba bokk yi nga xam ne ñun ñëpp noo jox suñu bopp Serigne Touba ngir jëmmi yàlla kenn ku nekk sab xol Serigne Touba nekk ci nga fas yéene di jëfe ndigalam di bàyyi tereem te génnul alquran ak sunna bokki taalibe yi noo ngi woo sunu bopp di woo bokki taalibe bi yépp tàggat yaram am na kenn ku nekk mën ngaa am mbégte bu la neexee mën ngaa ñaan ndam la mën naa ñëw yooyu yëpp mënees na ko def waaye ñi nga xamante ni bii kii di Cheikhul Khadim dëkkam bii di tuubaa nga xam ni daw mboosoo rekk a taxoon ak bañ kenn ko dox diggam ak boroomam ba tax mu ñëw fi def ko ni mu ko def fonk ko lool yemaliwu kook dara muy dëkkub jaamu yàlla di dëkkub yar di dëkkub teggin rikk waay kenn ku ne dangaa bàyyi sa kër maam bàyyi fa nga nekkoon ñëw ci dëkk bii di Touba Mbacké bi nga fi ñëwee nag Serigne Touba nga fi fekk si te tànk boo yëkkati jéego boo dox loo def na la xam ni na dëppoog li sëriñ bi bëgg lu dul loolu nag du ump Sëriñ Tuubaa ndax yàlla may na ko kon noo ngi laabiri suñu bopp di laabiri ñëpp waaye yët nag di artu ñëpp ci ni Sëriñ Muntaxa joxe na ndigal lii nga xam ne mooy football bi bu fekkee ne dimanche ak bu dul dimanche saa su nekk su su dara amee képp koo xam ne yaa ngi ci Tuubaa mayuñu la ngay génn di manifester fenn mayuñu la ngay wër di yuuxu fen loolu ñu ngi koy yëgal ñëpp. képp koo xam nag am njaboot na nga ko teel a xamal lii waaye bala ñu ko xamal yéen njaboot gi àndal nag jom ak ngor ak yer ak i teggin lii de du neex Serigne Touba waaye Serigne Mountakha mii fi nekk tey jii moo yeesal ndigal li na ko ñëpp dégg waaye maa ngi ci woote waal itam Safinatu Amaan dina def communiqué maa ngi ci woote waal itam ñi nga xam ne ñooy def bayaan ci jumaa yi ajjuma yëpp yëpp suba mboolem jumaa ju nekk ci Touba. kuy def bayaan na nga yeesal ndigal lii nga xamante bi digle nañ ko ngir xam leen Touba dañ fii tere kenn ku fi manifester te it nag lu ne mën na leen cee fekk zahir ak batinan waa kon nag kenn ku ne boo fekkee danga nga koo munta bañ a muñ génnal dem ba ca beneen dëkk mën ngaa dem ci région yi ci nga feete ko fa seetaane ko fa dellu siwaat waaye Touba daal ñi ngi xam le ni sëriñ baa ngi yeesal bu wér ni bëggul kenn kenn kenn kenn di fa yuux wala nga fiy tàccu wala nga fiy jubile wala nga fiy manifester bu fekkee ne football bi jàll na loolu nag maa ngi leen koy waxaat léegi waaye noo ngi woonu daal bokk yi def ay bayaan ci ajjuma yi Tuubaa yëpp yëpp jumaa yëpp bayaan yi benn ku ci nekk sa bayaan na ko jëmal ci loolu ngir ñëpp bokk ko dégg di wax itam ndaw ñii taxawu Tuubaa ndaw ñii taxawu Tuubaa ndax ndaw ñii taxaw ndawi Tuubaa ñii taxaw ndawi Tuubaa ñu takk ay rajo wër dëkk bi xamal ko ñëpp lii nag ku ko dégg jàppal ni am nga liggéey sa liggéey Serigne Touba ni nga ko war a jàllale ci keneen mu jàll ci keneen kon loo ko bokk yëpp dañ ko yëg bu eggee ci dimanche jàmm football boobu muy final bi lu mën a xew benn ku dëkk Touba nga rus Serigne Touba rus yàlla rus yonent bi rus Serigne Touba te ami teggin te jëfandigal li xam ne moom lañ wax ne ko ñëpp dégg wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu